asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki téléspectateur Equivox TV maa ngi leen di nuy di leen ziar di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen tey nag ku ne xam na ne gis ngeen ma ci biir féeri bi ça veut dire bu ngeen ma gisee foofu mooy maa ngi Gambia muy nuyu peuple Gambie bi yaay yépp fu ci doomu Gambie nekk rek si àddina bi moo xam ñi nekk biir Gambie ak Gambien yi nga xam ne ñu ngi nekk à l'étranger maa ngi leen di bëgg di leen ziar waaw wala ma ne sax di nuyu Sénégambia parce que Sénégal ak Gambie moom. benn réew la rek xam nga yaa ma gën a xam mais ñoom ñoo bokk lépp parce que li ngay gis fii di ko fi dégg boo demee fe moom ngay gis foofu moom ngay fay dégg kon benn peuple bi la benn famille bi la di ñaan jàmm Sénégal tey nag dama jàkkaarloo ak kenn wala ma toog kenn koo xam ne nii yaakaar naa ne ah bu ngeen ko gisee di ngeen ko xam te itam du ku ñuy laajte parce que xam nañ ko muy Idrissa Ndiaye sëtu Lëg Daawur comme ni ñu koy waxe ñu fekk ko fii ci Gàmbi bëgg tamit seq waxtaan parce que yaakaar naa ne dafa mel ni si su ma juumulee ci temps yu baree baree baree bari léegi ay itteem yu bëri dafa mel ni côté Gambia yàlla suñ bi maa ngi lay nuyu di la ziar. ginnaaw bi ñu santee yàlla julli si yonent bi di sant euh, population Gambie bi ak Sénégal yëpp euh, di nuyu suñu sëriñ sëriñ Abdou Karim Mbacke borom Makarimal Axlaa di nuyu fukki penc ñaar waaw di leen wax ni di la nuyu yow tamit Babacar yow mi ma dalal di la ziar bu wér-wér. tey moom yaa ma dalal. man maa fekk sa màkkaan nga dalal ma tey. waaw dëgg la dëgg la xam nga ñun ñëpp ñoo bokk lu ñuy wut si waaw ah, liggéey moo tax ñu ñëw fi yow tamit liggéey tax nga ñëw fi yàlla def moo tax moo tax ñu ne chaque jour day rafet suñ nekkee Sénégal dafa war a mën a rafet suñ génnee mu rafet kon tey su rafetul woon lii tamit du fi am waaw ah, kay. Euh, damay bëgg des fois su may wax nit kii damay bëgg ñuy seetaan xam kooku mooy kan dinañ dégg Idrissa Ndiaye surtout lëg daawur jeune la macha allah ci at comme ni ko nit ñi xamee mais dafa mel ni am na lu bëree bare bare loo xam ne mu ngi koy jëf ci doomu aadama yi mais bëgg naa nga wax ñu kan mooy Idrissa Ndiaye sëtu Lëg Daawur ak lan mooy indi sëtu Lëg Daawur beeg yooyu fu Iddi sooxee koo daal. waa Idrissa avant tout Idrissa sëtu yonent la waaw loolu yàlla def na ko sama côté néegum ndey parce que sama côté yaay ñu ngi sookee ko si sëñ Sidi Muxtaar Kunta wax balaa Lëg Daawur a ñëw bi Idrissa Ndiaye ànd ak sagam ndëg daawara war a ko jàpp jàppoon maamam nekkoon ak maamam tamit maamam doon ko defal ay affaire yàlla def tey ndëg daawar jox ma bopp di wax ak man li ñu war a def ndakaaru muy tuuru muy sarax muy lépp la ma jox sax at ma koy def yàlla def tamit euh, bi ma ci nekkee boobu ba tey depuis 2011 ba tey maa ngi ciy sant yàlla maa ngi ciy gis ab yëkkati ko euh, Idrissa Ndiaye tamit séeréer la tamit ci côté baay ak lébu si côté yaay mu doon naar ak pël ak shérif waaw loolu la Idrissa Ndiaye Idrissa Ndiaye daal mu ngoog daal <laughs> noonu la ko yàlla composé waaw. <laughs> am na solo loolu leer na nañ mais dali bu ñu déggee lëg daawur maanaam parce que dañuy faral daan dégg ci waa Seng Seng rawatina Alaaji Wee Seng Fay yàlla na ko yàlla yërëm wala doom Mbay Jëy Fay ñu koy nuyu di ko jaar damay faral di dégg ci seen tëgg ñuy bàkk waaw di bàkk lëg daawur lëg daawur mu mel ni boo leen dégg kon dafa mel ni kon tamit dafa mel ni yéen waa nda yow waa ndakaaru ngaa cent pour cent wala waa ndakaaru cent pour cent ndakaaru suñ ko doon xaaj mënuñu ma see génne sañ-sañ nag ñoom ak ndëg daaw dafa yàgg si bàyyi laama bu naa maas la woon ba tey ñoom dañoo am cër si ndëg daawul xam nga yàlla dalay jox galañu faj comme galañu tëgg maanaam comme pa Abdou Karim Gueye papa ñoom Petit laa ak Samba Diop yàlla na ko yàlla yërëm te xaare ko àjjana mag ñooñu ñoo fi nekkoon doon tëgg tëgg ndëpp rab dalay jox maanaam day jox kii maanaam ki nga xam ni maanaam da ko jox galañ ki mu jox ko wàllu reen reen mooy ki nga xam ne moo war a mën a faj jarage ki nga xam ne su feebaree rab jàpp ko maam góor jàpp ko wala mbisaan jàpp ko wala maam njare jàpp ko mu mun ko faj yaa ngi dégg baax ba noonu la demee bi ma ndëg daawur jàppee nag laam-laam bi bëri woon na trop coow li bëri na trop est-ce que moom la wala du moom waaye ñu demee ba ci biir ñu ndëppal ma kilifa yëpp ñëw fukki penc yeeg ñaar ñëw fépp fuy lébu ñëw fépp fuy fajkatu cosaan ñëw taxaw biir Pikine ñu defal ma liñ may defal ñu tëgg ndëg daawur ma bàkku ko ñu wëlbatiku ma def tuuru ndëg daawoon bay rey juróom-ñaari nag invité fukki penc ak ñaar jaraaf yi ñëw saltige yi ñëw ñëpp ñëw si la ñu bëri xamee ni boroom dëkk bi jox na ma bopp waaw te du ma def loo xam ne jaraaf Youssou ndoo yëgu ko ndax ñooy samay kilifa ñooy samay lépp. Mhm. loolu bi muy am ñaataat nga am. waaw parce que man 93 laa. waaw 93 parce que 2011 si la ma rab jàpp si la sama maam dëddu àdduna rab jàpp ma bi ma jàppee ñu woo sama bàjjen Mati Ndiaye bu Fatim Niang bi xam ne moo yoroon tuuru maam ndëg daawur mbay. bi ñu woowee sam bàjjen Mati Ndiaye mu ñëw bi mu ñëwee mu ne leen kii yëfu maamoo ko jàpp ma ne ko man damay fubali yi ngeen wax nii defal leen ma li ngeen may def ma def sax mu ne ko baax na biñ ma sampalee defal ma liñ may defal si alxamis ba laa njëkk a faj benn naar li may wax ni euh, doomu Pa Abdou Karim Gueye muy Samba Diop moo tëgg loolu ñoom ñu jógee Medina ñëw Pikine ma ndëppal kooku benn fan faj ko mu wér yàlla def sama nijaay ñëw dugg si ndaa yi xool ne ma ndaa yi baaxul foog ñu ndëppal la si lañ ma ndëppalee biñ may ndëppal Mouhamed Ndiaye nga fa maam Bouba Faye nga fa Pa Ousmane dem si yàlla nga si bàjjen Mboose nga fa moom dama lay jox ñaan nga koy dégg rab ak jinne ku koy fenal naan moom la wal du moom nga war ngeen war nañ xool melokaan bi maanaam melokaan bi mooy maanaam sa Ndiaye depuis boobu ba tey fu ne mu ngi fay dem ci liggéey bi te dërëma musu ko muy yéeg avion tawuma muy am lu baax tawuma te lépp si liggéey bi laa ko amee te doonul loo xam ne ñuy dóor doonul loo xam ne dañuy naxee waaw mosuñu si am tamit problème liggéey bi. déedéet. au début bi nga débuté dakaar parce que coow li bëri woon na Dakar gis gis nañ la si nawetaan suma juumul gis la si côté Ama Balde gis la maanaam gis la ci ay fu bare bare bare bare mu bëri woon coow lool jamono jooju lu andi woon coow li waaw Babacar euh, euh, alhamdulilah loolu sant yàlla la ab cant la euh, cant googu maanaam mooy tey gis nga nit soo wootee fenn ñu bëri duñ la nangul. ñii dañ naan mën na ko ñi naan mënu ko bi yàlla defee ma ànd ak Ama Balde champion boobu ma liggéeyal ko yàlla def mu rafet bi ñu guy gi daanee dañoo ne dama kaa jaay xam nga wax day leer idée yàq idée def lii man doomu jullit laa si xeetu Seydina Muhammad laa bokk sallallahu alayhi wa du ma wor du ma jaay du ma yàq deru jàmbur du ma wax doomu aadama jaay lu bon yàlla xëy na suñu wërsëg foofu la ko yamale woon foofu la waxoon ne fa lay yem yaa ngi dégg bi yàlla defee loolu mu changé ñaanal naa fi yeneen mbër yeneen mbër yeneen mbër waaw maa ngi liggéey ak ay mbër. ba tey ni yaa ngi ñëw ci yow. sëñ Fallou barke sëñ Fallou barke sëñ Fallou maa ngi liggéey ak ay mbër muy Sénégal muy gàmbi gi. maa ngi liggéey ak ay mbër. mais ah, côté Ama tamit sa diggante ak Lac tamit amoon na fi wax joo ci waxoon ah, yaakaar na mu juróom coow euh, jàppal bàyyi loolu tamit loo ci mën a leeralaat nit ñi seetaan. sëñ Fallou moom. suñ sëriñ la muy Lac ñu ngi koy ñaanal yàlla defal ko tawféex avant tout ñoo dëkkandoo woon ñaari tali man ñaari tali lu ne laa fa def coupe bu ñaari tali jël sama loxo ngi nii si muy coupe de la ligue muy championnat Sénégal muy nawetaan dama marqué sama empreinte biir ñaari tali biir ndakaaru sax dama am marqué sama empreinte avant maa génn bi yàlla defee sunu làmb seet si ma ma wax si combat man leen Lac Rose de su deful attention su bëri woon tay tay tay tay ñu daan ko. moo kan a doon moo Garga Mbossé bi ma waxee loolu presse bi génne soleil bi soleil bi génn coow li bëri trop moom mi ñëw ndeysaan ne ma waa ko ñu Lac yaa ngi wax rek man leen man mënuma dëkk ñaari tali Lac dëkk ñaari tali ma koy xeex waaye la ma gis laa wax mais su ñëwee dinañ ko jàppale soxla ñu si dërëm coow li bëri sama nijaay yëg loolu muy sama kilifa dem kër ñoom Lac Rose waxtaan ak ñoom ne xale la lam gis rek la wax mais dina la jàppale sama nijaay jóge foofu ñëw wax ak man bi muy dem ànd nag kii bi ñu waxtaanee ñëw ma ne ko dinaa ko may mille tisat dinaa ko may benn nag pour mu toggal ay fansam loolu man maa ko wax yàlla def la lendemain ma am dese moom ki mu takk kii nii toog ki mu takk seen magu papa xama gorom daal moo gaañu ñu demoon yof si rob rob ba bi ma ñëw ba dugg sama néeg toog di re euh, di ndékki fi lañ ma attaqué hmm. waaw ah, fi la coow li bëree saccage yi commencé yàqu-yàqu yi commencé ñu ne man damaa dem ko ñu Lac Rose dafa toj nan te boobu maa sama biir néeg di di di di di di di ndékki xam nga fi yàq yegg weddi yeggu fa bi loolu amee presse bi yëpp ñëw police ñëw koñ bi fees dell ma ne leen dina toog juróomi at du am ndam. Hmm. na dem fu ko neex fii man leen dina toog juróomi at ci kàttanu yàlla du am ndam. parce que dañ maa tooñ dañ maa yàqal toj samay ndaa toj samay samp toj samay jalang waaye nag ab gis nga sëriñ foofu lañ koy xamee maanaam fekkee yàlla dalaa may dara si kaa yi mel noonu ngay wane sa bopp parce que koo tax ne ko juróomi at doo am ndam juróomi at bëri na ko te amul ndam bi muy bëri Moussa Ndoye Moussa Ndoye daf ma seet bi muy bëree garga maa njëmb garga mboose demal nga dékk garga micro waaw parce que loolu yëpp man maa ko waxoon parce que dama doon lancer défi man ak moom. waaye jéggal naa ko ndax sama sëriñ la bugguma sax di si waxaat xëy na dañuy leeral mais lañ jàppoon lépp bàyyi nañ ko mu sedd barki sëriñ Fallou Mbacké hmm. jàppaluñu ko lenn. mais est-ce bu ma la dégg waxee nii wala si ñi lay seetaan dégg la nga waxee nii est-ce que nit tamit ak lu pouvoir boobu war a mën a am ak doole ba war a mën a am est-ce que war nga mën a euh, doxale noonu sa digganteeg sa moromam nit donte dalaa tooñ maanaam taxaw ne ko lii di doo di ko xel di ñàkk ba nangam est-ce que loolu war na am wala. xam nga lu waral loolu tey ma wax la ko euh, sëñ Babacar tey àdduna gis nga ñun dañoo yoroo si keppaaru Serigne Mansour si malgré ay murid lañ borom daara ji daf ma téye di ma ñaanal di ma ñaanal ñu jël ma yóbbu ma si Seex Wàdd warang mu may jàngal bëgg ne ko sëñ Mansour si waaye yàlla moo def sëñ Fallou nekk sama biir xol bi yàlla moo def ma doon taalibi sëñ Abdou Karim mais ma seen benn religion gis nga jaan gu ndaw da koy maytu jaan ju ndaw moo gën a metti le dangar jaan ju mag boobu xale lañ wax ji bëri na mu ngi toog tamit ci palaato yi di wax naan maanaam ci kaw gàttal lii maanaam ci kaw gàttal laa ma ni tekk tekkaaral bi ma presse bi set see wax ak ma man leen dinaa ko def sàngam xam loolu lan la woon dañ doon wane ba xam ma mën naa wala mënuma pourtant moom ëpp ay moyens dañuy waxtaan nag wax ñu pour bokk internet yi wax ñu pour loolu dañuy leeral moom ma ëpp ay moyens moyens maanaam mooy lan mu ngi faye ko ay millions waroon na mun am ay sëriñ yu ko ngemb si kombaam yëpp pour mu daan waaye dama ko ni fekkee ndakaaru am naa fi dara ndëg daawut di sama maam ma yor tuurum ndëg daawut di ko def dina bëre juróomi at du am ndam waaw ma loolu am na solo defe naa loolu leer na euh, léegi moom parce que dama ci yëre rebondir ci ñaa ci ci affaire boobu ba tey continuer parce que lagros gëjoon toog na temps yu yàgg amul comme amul ndam ba gëjoon na sax bëre defe naa bu yàggul dégg nga ko am a neex. waaw li ma koy ñaanal mooy yàlla na ko yàlla may ndam. si darajay Seydina Muhammad yàlla na ko yàlla may ndam ndax ginnaaw ay jàmm. waaw ndax sa moom sama sëriñ la man sëñ Fallooy sama sëriñ te man lépp lu ma am sëñ Fall la kon nit ki da ngeen ni tongoo après mu jeex mu jeex affaire xale ko jàppoon affaire xale jàpp ma ku nekk fëggu de jeunesse rek la woon. mais mu ñëw si man mu ñàkk ñëw si man jéggal naa ko si xol bu sedd guy te yàlla na ko yàlla may ndam hmm. waaw gàllankoor yi mu nekk tamit yàlla na ko yàlla teggal si darajay Seydina Muhammad hmm. uh, su ma continuer ba tey nee nga ay mbër dañ lay seet si ba tey combat yi taxaw na fi mu nekk nii dégg nga combat yu mag yu taxaw yu bare bare bare bare ci réew mu Modou Lo Ama Baldé gay Gaye Bombardier Balla Gaye Boy Niang Balla Gaye Gris Bordeaux Boy Niang Tapha Tine Gouye ah. bu Tyson 2 Franc buñ ko Garga 2 Mama Lamine suñ ko doon lim tey defe naa duñ fi jóge Abdou Diouf Giri 2 double moteur Coence bu Lansar mu mel ni combat yi lamb ji parce que mën nañ ne Moussa Ndoye Sa Thiès mbër yu mbër yëpp parce que yi ci ëpp bokk doomu dàngu Jordan mbër yooyu yëpp maanaam fi mu ne nii combat yi taxaw na ba ci yenn xale espoir yi sax ñoom dafa mbër ak aada faas yu baree bari si ta Sow ñooñu fi mu nekk nii combat yooyu yaa ngi koy dégg nga ko dafa am ñoo ciy jëflanteel ci ñooñu ma lim. waaw combat yooyu dégg naa ko euh, fi may njëkkee mooy sur le cas de Modou Lo. waaw non non si cas Modou laa jiitu. parce que su si cas Modou laa jiitu Modou bi muy bëri Eumeu Sène man lépp lu may rek xaw ma Modou xaw ma ko mais ay entourage am ñi ko seek xam nañ ma. papis tamit xaw ma ma parce sooy wax da ngay wax si internet lu leer. Nicolas laa xamanteel hmm, Serigne Ndiaye ak ki nga xam ne moo nekk El Malick ki ma fayoon contre Eumeu Sène moo ma fay xaalis gu weex tàll bu mujj bi mu jëlee roi des arènes bu mujj gii déggoon ma xanaa maa ngi toog si ginnaw cumbukaay muloo si kaw loose office barki hmm, barki Serigne Fallou Mbacke billaahi wallaahi wa taalaahi loo tax mënuma wax si côté Modou dama faa bëri ay soppe waaw dama faa bari ay soppe malgré àdduna ama lañ ma xameloon yàlla def ànd gi amatul waaw ànd gi amatul waaye nag côté Modou Lo dama fa bari ay soppe dama fa bëri ay nit ñoo xam ne dañuy jàppale mutloo te dama leen di ñaanal man en personne waaw am na ñu mën a tudd seen tur nag am na ñoo xam ne mënuñu tudd seen tur. mais mais mais mais mais contre nga wax balaa ma koy balaa muy sori euh, kera yow kon yow yaako ko ngemb wala bokk nga ci ñu ko ngemb indi ko te da nga amoon yàq ne day am ndam. yàlla mooy ngemb mbër. man dañ maa fay xam nga tey sëñ Babacar dama lay jox exemple am na ko bëgg Babacar te musta musta mus mus euh, am na ku bëgg Babacar mais Babacar am na ñu koy ñaan ñoo xam day dem si ñoom toog ñoom waaye am na koo xam dafa bëgg Babacar di pour sonn si Babacar yaa ngi dégg di ko demal si ay sëriñ di fay xaalisam di def léppam pour Babacar am ndam noonu la demee ki ma fay mu ngi El Malick su émission bi jeexee soo bëggee léegi ma vocal ko mu tontu nga xool commerçant la moom fay xaalis weex tàll ma ne ko combat bi nii lay demee te na ma ko waxee combat bi noonu la demee noonu la demee mooy dóor mu daanu ba. billaahi wallaahi wa taalaahi barke Alaaji Fàllu Mbàkke bi ma yaakaar àdduna ak alaaxira du ma fen duma wax lu ma wóorul waaye nag guddiñ toll wax dëgg yàlla ak yonent bi suñ ne woon déet côté Modou laa gën a féete. digganteem ak Ama. waaw xam nga tax lu la yow itam nga jaar ak Ama yëpp tey nga dem ci muudu. non dañuy waxtaan xam nga waxtaan lan la. Ama am na koy ñaanal. maa ngi koy ñaanal jàmm. yéenewu ma ko lu bon yéenewu ma su ma nee côté Modou laa far maanaam tey benn tàkkusaan du ma nangu mu yàqal ma samay nitu démb wala samay nit yoo xam ne tey jii maanaam damay am samay programme di def wàllu aide wàllu social ñu yëkkati seen alal di ma ko jox. Moodu day def ak yow loolu wala ay ay nitam. nitam déggoo man la man xaw ma Moodu ay nitu Moodu laa xam ñoo xam ne ñii ñu ngi Espagne ñii ñu ngi Sénégal gii ñeneen ñi ñi nga xam ne dañuy ànd ak Wally sekk tamit ku mel ni ñaa xarañ loo ku mel ni Demba xarañ loo ñoo ñëpp samay nit lañ. maa ngi seen numéro dañuy waxtaan dañuy déggante te su ma soxlaa si ñoom dara dañ ma koy defal. mais combat maa tudd turam ndax mu ngi ba Espagne. ba kenn ki mu ngi ba Espagne mais yow combat bi tiitalu si Modou yow ci côté mystique. non du lu ñuy tiit gis nga euh, mystique. Hmm. am na. amaa nee nañ mbër mu bëri bagage la de. dama la mystique am na waaye foog entraînement jiitu mystique ba pare. Hmm. ah foog entraînement jiitu mystique. Hmm. ah suñ si yeggee ak jàmm ci kàttanu yàlla. ku ne xam ba xam na wala entraînement mu am. Hmm. ah boobu ko. sa la bokk sa xarit sama lépp la muy Jamaïcain. jam du def lu ma lu lu ma am gàmbi ginnaaw ginnaaw yàlla ak yonent bi la. kon nag mënu maa jam jam paaka ginnaaw. non ragal féete day xañ a wërsëg. kon daal su ma la déggee yaa nga féete ca Modou. waaw muy kama fayoon fay ma muy kee nekk fee fay ma maa ngi ci côté hmm. waaw kay. mais tey damay gis ñenn ñoo xam dañuy taxaw rek nga laaj leen combat diw ñu ne diw combat comme nga ne booy ñaa xam nga boobu combat mu ngi ñëw combat boobu noo ko gisee ci mystique ñoom ñaar fi nekk nii boo ko doon xayma. waaw xam nga euh, euh, dama am lu ma waxoon man ak sama entourage ñu wax ko su yàlla defee mbër yu bëri léegi doon ak yow ñu doon ak yow ay xarit comme ay rëg-rëg buur gi wala tax ma xam ko ñu may defal ay vidéo di wax ak man ñaaw na ngay wax si ñoom ab safaan comprends nga. maanaam nit soo doonee nitu ñëpp dangay ngay maytoo ñu lay xalaat ci yenn yi soo gisee ma leeral si côté Modou Ama ak Lac Rose dafa lu tax même côté doomu daangu mun naa si sama mbër la. doomu daangu sama mbër la sama xarit la sama frère la te bëgg naa kaa gunge mu jël roi des arènes. dangu barki sëñ Fallou. loolu dana yomb ci moom. non xam nga nit ki di nga sekk ak moom loo xam ne ñaan sax day dootul xaj seen diggante doomu maanaam dafa maa yéene. daf maa yéene te man soo ma yéenee rek sonal ma ku ma yéene moom ma sonal ku ma yéenewul nag sonaloo ma te doomu daf maa yéene équipe am nawetaanam maa koy ñaanal muy ay ASC Lebu gi waaw kon lépp te lépp si loxoom la jaar kooku sama frère la sama lépp la te damay ñaan yàlla contre Jordan yàlla may ko ndam te dinañ si am ndam bu neexee yàlla yonent bi incha allah dañ si am ndam lu gaaw ci kàttanu yàlla si euh, Moodu Ama dinaa ci des parce que signature contrat bi fii lay amee ci bi loolu la lig ni ko lay wax moo ma ko wax keroog ci micro bii fële nga xam ne moom moo di ñaniñ ca Mbuur waaw alhamdulilah dañuy sant yàlla gis nga signature bi am na ku ma ca waxal kooku nekk dama ko ni lu xonk bu mu jege kër Modou Lo lu xonk suñ fay ñëw bu mu leen jege te alhamdulilah ba lu xonk jegew leen parce que lu xonk su leen jegewoon lu ñaaw dina xaw foofu waaw lu ñaaw dina gis nga combat Modou Lo bi di nga ci gis lu garaaw. waa ñu bëri tiit nañ ci de. di nga ci gis lu garaaw xam nga gis lu garaaw gi mooy lan. maanaam yàqante gi da cee commencé bëri maanaam yàqante gi da cee commencé bëri ak ak maanaam ñi nga xam ne maanaam tey jii ñaari mbër yëpp nag nañ def très attention très mooy lan wor day bëri ci combat yooyu. combat bi xalaat nga ñu wor ci. bañ a ka. maanaam ñaari mbër yi kenn ci say ñi nga ñi la jege wor la. billahi wallahi wa xam nga tollatuñu maanaam. li ngay wax ni yow mbaa du doonub jaxase wala ab teeyum xel. non duma du ma jaxase. Ah, maanaam boo ne ñoom ñaar dañu def attention parce que war ma naa am ci ñoom ñaar. du ma jaxase xam nga jaxase mooy lan. Hmm. mooy tey nga jël ñaari nit di leen féewale. mais duma ma jaxase xam nga lu tax. Hmm. parce que da ngay gis benn sëriñ bu tëllee fële ne maa yoroon Modou Lo contre Eumeu Sène nga jug benn sëriñ bu tëllee fële ne maa yoroon Ama Balde Modou lu ko may roi des arènes hmm. mun na tax mu daan Ama Balde Ama Balde li ko indi fii mun na tax mu tënir Modou xarañ loo dama lay wax ñaar nga koy dégg fii dama lay résumer combat bi. combat bi première cinq minutes la ci Ama Baldé am su ko weesoo amatul dara ci combat bi. Ama Mour. dégg benn song googu su ko rëccee dootu ko ce que song dina ko rëcc. déggul ma benn song googu. benn song googu première cinq minutes su ko rëccee mooy combat bi parcelle lay fanaani. xalaat nga mu rëcc Ama. man daal la ma la wax ne laa benn song googu te bàyyi si xel li ma lay wax ndax benn cong googu hmm. su ko rëccee. su combat bi diiree nga xam ne Modou Lo mën na bëri trop waaw su combat bi rëccee nga xam ni su combat bi diiree nga xam ne Modou Lo mën na bëri trop barki sëñ Fallou waaw kay. di nga gis ay combat yi neex ren nag saison bi. Balla Gaye ñetti combat yi mu jël ñëpp di ko coow ne waru jël loolu loo ma cee wax ñu ñu tëjee foofu. waaw Balla nag mënu ma cee sori xam nga lu tax mënu ma cee sori mook sama nijaay dañuy jëflante muy Xaadim Mbay surtout lëg daawar boobu nekk Pikine sama nijaay la sama lépp la à part doomu dàngu ak li ma wax si Modou Lo nii amul beneen mbër buy taxaw may may manaan la sama mbër nga déedéet waaw à part doomu dàngu ak li ma wax si Modou loo wax ko si si si si si si Balla Gaye amul keneen ku mun a taxaw time is money la leneen li liggéey la ku ma fay ma liggéey la ku ma fayul mooy loolu mhm. ndax ñu ngi Gàmbi fii di liggéey nekk suñ sutura parce que léegi dañoo war a dépasser yenn boucan yi ñu loon dugal déedéet te soo xoolee ces temps yi nekkul presse bu nekk laay wax. xaw jafe tout da xaw a jafe. non du jafe parce que gis nga génn génn gu bëri gi chaque jour ci presse moo lay tax ngay bëri ay noon mooy tax ngay bëri yenn détails yi nit nag war ngaa taamu fi ngay waxee ak fi ngay fi ngay génn ndax tey sëñ Babacar maa ngi koy siiwut lu bëree bari say interview mais sëñ Babacar du jël sëriñ di ko jaxaseeg nit wala du jël mbër di ko jaxaseeg peuple bi. c'est très important ñun ñoo mën a mayante ñun ñoo mën a jàppalante mais da ngay gis Idrissa Ndiaye wax benn affaire ci titre ci émission ñu jël leneen titré ko émission bi yee fitna mooy la problème man ak Lac Rose ndax fitna la bu ñu yee rek te yàlla war nañu yàlla rëbb na képp ku yee fitna te Gambie gi sama teraanga dafay nekk sama lépp dafay nekk Sénégal sama teraanga dafay nekk sama lépp dafay nekk waaw loolu daal xam naa ko si si si mbir mi. Gambie waa Gambie ak Sénégal yëpp mbir dox na parce que Gambie 15 jours laa fi def Sénégal 15 jours damay baagante Sénégal Gambie mhm. depuis janvier sax fii la ma fekk waaw fête fête seen fête fii la ma fekk ndax dama fay amoon combat benn mbër bi ma fi doon ñaanal bébé booy baal la ki nga xam ne gëjoon na daan moo daan euh, euh, building mhm. combat boobu maa ko loon maa ko loon liggéey te tuddee woon nañ ma fi tamit drapeau jamee kenn tuddee woon na ma fi drapeau mu doon sama xarit mu doon sama lépp te si biir staffu jam pro promotion euh, euh, production si laa bokk. Mhm. Mhm. looy tàggatoo ñi lay suivre ci Equivox TV Idrissa. li may tàggoo mooy euh, mbër yi ñoo mën a mayante seen biir xaalis ba pare ñu yéenante jàmm journaliste yi yéenante jàmm ñëpp yéenante jàmm parce que àdduna jàmm la gis nga tey su réew amul jàmm sëriñ du fa mën a dem bay inverser journaliste du fa mën a dem bay dékk nit micro. tey soo fi ñëw nga dégg Gàmbi rayante gaa ngi fi tulleeg Mali doo ñëw li may ñaan mooy jàmm di ñaan Serigne Fallou gën a yokk làmp yi di leen ñaanal jàmm di ñaan si ñëpp jàmm di nuyu sama entourage ah Dani Zo Momo l'international Ibrahima Ngom di ñaanal ñëpp ah, di ñaan si réew mi jàmm daal waaw. Ah, mhm. macha allah tamit sa habillement rafet na ma wax la loolu tamit li nga sol macha allah. waa lii de waa Thiès habillement ñoo may solal. ah Thiès habillement ñoo ma ñoo ma defal lii daal. waaw ñooy solo sax entourage bi yëpp xam naa dinaa la fa yóbbu ñu solo la ci kàttanu yàlla non soo ñibbisee Sénégal kay woo ma ci kàttanu yàlla ma yóbbu la fa loolu koy amul problème am na am na yeneen tenue yu gën a yànj yi sax waaw am na yeneen tenue yu gën a yànj yi yow kay soo soo ñibbisee Sénégal rek yow woo ma ci kàttanu yàlla incha allah sañ Babacar kontaan ci jërëjëf kontaan naa trop jërëjëf jërëjëf